Euh, mu daal di euh, wax ñu Babacar. bu fekkee ne Babacar mi ngi ci li Babacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors mën nga ma tegal photo Ousmane Sonko ak aji saar bu ko defee Babacar euh, jox ñu li nga xam ne moom moo tukkee foofee ca tribunal bile Babacar yow rek la déglu. ñu ngi ci tribunal bu Ndakaaru. Mhm. il est trois heures vingt deux. Mhm. Euh, juge bi nee na délibération bi le premier la. délibération bi le première la. le premier juin incha allah. le premier juin. waaw incha la délibération bi. Mhm. daanaka nit ñi ngi gisee salle bi. exemple mhm. bi procureur mu ngi sàkku euh, dix ans kaso. bu mhm. ñu tëj ko fu cinq ans de prison. amaan ko un milliard. amaan ko un milliard. baal ma nga nga nga bamtuwaatal ma li nga xam ne euh, wax nga ko ginnaaw ba procureur génnee di joxe li nga xam ne moom mooy verdict bi. Mhm. ma ne procureur. Mhm. mu ngi sàkku ñu tëj aji Ousmane dix ans de prison. dix ans de prison. cinq ans yi la koy tëdd cinq ans ferme lay tëdd. cinq ans yi da koy tëdd. waaw amende de un milliard. amende un milliard. loolu la procureur sàkku ci juge bi. Mhm. léegi juge bi moom dafa délai euh, délibération bi le premier la incha allah. le premier juin incha allah rabbi. instant bi nit ñi génne saal di génn. Mm-hmm. daanaka il fait trois il est trois heures vingt cinq. Mm-hmm. ñu ngi nii ci ci ba Dakar. Mm-hmm. dinañ jël dinañ déglu avocat wu Mhm. bu fekkee mën nañ ko am par appel bu fekkee mën nañ ko am par appel itam dinañu gënal lool ñu mën ko jëlaale en même temps itam. waaw léegi incha allah amul benn problème di jël. Mhm. dinaa leen woo ci appel mu nekk benn voix lay doon. incha allah rabbi. Eh, jërëjëf. jërëjëf Babacar jërëjëf. alors ñu ñu ñuy gërëm bu baax Babacar moom mi nga xam ne moom moo ñu toggal euh, foofee ca ca ca palais de justice bu dakaar ñoo ko déggandoo délibération baa ngi noonu nag le premier euh, <laughs> dafa am keneen ku ne ci ligne bi d'accord salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi na nga maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. na dafa coono. alhamdulilah ñu ngi sant bu baax. yu tëy hmm. masaw baax di leen jaajëfal ci jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ bi ah wax ni dégg nga dégg nga verdict bi su ma juumul dégguma man a dégg nga bu baax li nga xam ne moom la euh, euh, procureur di sàkku ci ki nga xam ne moom mooy monsieur le juge waa dama lay suivre moo tax ma woote ni di wax sama xalaat d'accord allez-y di wax ni réew mi fi mu nii doy na waar. Mm-hmm. lii amul ku ko sa maam nettali wala sa waajur. Mm. amul benn opposant bu mos a dund jafe-jafe yu yu tegaloo nii yu baree nii. Mm. ay bakkan rotti. Mm. sëñ bi tey dama dem marché Ziguinchor bi timis di bëgg a jot sama àdduna dafa tukki. kon yaa ngi Ziguinchor. wallaay ma ni xàq bi nan la ko nit ma ne Hmm. nan la ko nit àttane hmm. da ngay gis maire bu teg këllu cereem nga xam ne dépasse ci la koy daw wala lu ay njabootam reere mu koy mu mu koy jaay ci fitna di gaawant hmm. nga gis ñi jaay fonde di gaawant ñiy jaay salaat ak concombre di gaawant ñenn ñi di muur seeni palaas ngir manifestant yi bu ñëwee bu leen romb yàqal leen dara fitna googu nit ñi di ko dund pendant des années. Hmm. ndax depuis deux mille vingt et un hmm. nit ñi bu nu dalee trois mois. ñu hmm. yëngalaat seen seen yi bu nu dalee trois mois ñu yëngalaat seen tension yi. ci rek loo xam ne lu lu lu yomb rek la la sëriñ bi. te ñaata nit ñoo liggéeyul Dakar. d' accord euh, sëñ bi nga baal ma ñu déglu maître El Hadj rek daal di daal di ñëwaat continuer jërëjëf ñu ñu déglu vite fait maître El Hadj Diouf euh, Ouzin ñu ñu déglu ñu déglu Ouzin moom mi ngi ak euh, maître El Hadj Diouf ñu ñu xaarandi Ouzin Mhm. ñu ngi delloo ziar bu baax. alors euh, comme ni ngeen ko voilà xamee ñu ngeen nii en face ak nga xamante ne mooy El Hadj dañuy euh, taataan euh, kàddu yi en direct rek ñu bàyyi ko déglu ko mu daal di wax dégg nga. Mhm. d'accord ok. les Français, je vous remercie pour l'importance que vous accordez. à cette procédure qui a coûté au Sénégal une vingtaine de morts. L'heure est grave. Notre pays ne mérite pas une guerre civile. Notre pays ne mérite pas une guérilla. Notre pays, le Sénégal, ne mérite point une division. Le meilleur point. L'animosité. Les guerres ethniques. Le clanisme. Le massacre de sa jeunesse. L'instrumentalisation et la manipulation. de ses populations. Notre le Sénégal, vient aujourd'hui de tenir un procès capital pour son devenir, pour sa stabilité, pour la garantie du fonctionnement normal de ces institutions. Personne n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Personne ne pourra être impuni dans ce pays. Tous les Sénégalais sont égaux devant la loi. Quel que soit par ailleurs les responsabilités de communes. Aujourd'hui, c'est l'affaire. Concerné deux voies transférées d'un côté Adji Sarr Adji Sarr ma cliente de l'autre Ousmane Sonko et Ndèye Khady Ndiaye on a allez s'il vous plaît taxawoo seen muy ñëw na wàññeeku c'est sérieux dans ce que fait c'est très grave ce qu'il fait c'est extrêmement grave c'est grave a eu des morts inutilement on a fait tuer des jeunes alors les absents les observateurs ont du tort alors que le préfet Ndour faut qu'il travaille sereinement les raisons On n'a pas renvoyé le procès. C'est aussi de maîtriser les termes judiciaires, voire juridiques. Parce qu'ils ont délibéré et nous avons L'affaire a été jugée depuis ce matin jusqu'à 3h30. 3h du matin. Qui ose de parler de renvoi Vous avez vu, pendant la matinée, vous avez vu des avocats plaider longuement pour obtenir le renvoi. Et ils ont échoué lamentablement. Parce que c'était en fait dilatoire. Et c'est ce que lui-même se disait. J'ai produit l'audio qui était pressé d'aller au jugement. Et l'instruction était terminée. Et c'est une de jours pour que le jugement soit fait, qu'une décision soit rendue. Et civilement, M. Senko de ne répondre. aux convocations, de dame justice. De quoi as-tu peur Mais de la vérité C'est Mahran Keben. Là où doit jaillir la vérité. Avec des débats contradictoires. La parole donnée à tous les partis. Mais comme vous le savez, Sonko est défaillant. quand on est défaillant quand on ne se quand on ne se présente pas devant la barre du Sud on ne peut pas bénéficier de l'assistance d'avocats et que les avocats ne peuvent pas prendre la parole quand un accusé ou un prévenu choisit délibérément de ne pas comparaître ce qui s'est passé mais malgré tout le cas s'est déroulé parce que M. Sonko a son calendrier qu'il veut imposer au tribunal Non Le tribunal mi ngi noonu dinañu jéem a jokkowaate ki nga xam ne moom mooy euh, Ouzin pour déglu rek la version wolof de maître El Hadji Diouf moom mi nga xam ne moom mooy layool kii di Adji Raby Sarr alors nag euh, information bi yéen ñëpp yéen a ko déggandoon ki nga xam ne moom mooy procureur bile moom nag li muy sàkku euh, ci juge bi mu tëj ki nga xam ne moom mooy euh, Ousmane Sonko dix ans ñu delluwaat tribunal voilà ñu ba tey. ñu ñu xaarandi ba tey ki nga xam ne moom mooy euh, Ousin moom yi nga xam ne moom moom ñu toogal foofee ci tribunal bu Ndakaaru Ndiaye ki ngeen doon dégg nag mooy maître El Hadj Diouf